Boubacar xam nga yow vous êtes réputé être un républicain. oui conseil constitutionnel bu joxee son go. waaye ci ay rek moo wax la conseil constitutionnel bu joxee son go. cour suprême rejeté recours recours bi ñu acté li nga xam ne moom mooy le report président mën a promulguer le le le le le le décret la mais n'oubliez pas que ce sont les députés de l'Assemblée nationale à la majorité qualifiée. ñoom ñoo ñoom ñoo voté une loi modifiant l'article 31 ñoom ñoo proroger le mandat du président de la République de manière ponctuelle et conjoncturelle jusqu'à la passation de service avec le futur président élu on est dans oh, c'est mën nga jàpp ne c'est c'est c'est c'est immoral c'est illégitime mais c'est légal non man aw ma problème boobu. c'est légal aw problème boobu da ma ne man lan mooy nekk sama attitude pas par rapport ak légalité bi mais par rapport ak situation bi muy créer situation bu muy créer man ci sama gis-gisu bopp di nga ne waxati naa loolu laa lay expliquer pour man situation boobu muy créer moom mooy nekk crise bi loolu mooy nekk crise bi et c'est ça qu'on doit loolu même bu amoon man su ma doon président de la république déglu ma bu baax ma wax bu hmm. ma doon président de la République conseil constitutionnel ne ma rejeté naa euh, d'accord naa promulguer loi bi xam nga nu may def. Hmm. damay démissionner. damay démissionner. Hmm. ñu jox pouvoir bi assemblée nationale. président assemblée nationale. mu organiser élection yi dans les trois c'est ça la grandeur. et c'est moi ce que j'attends du président de la République parce que moom il a partout que buggul des ci pouvoir bi loo xam ne lii boo fa toogee da ngay créer instabilité mais kon na fata juróom-ñeenti weer ci pouvoir ku def douze ans de pouvoir kon na fata juróom-ñeenti weer donc on peut suspecter on peut penser que vraiment problème mu mag Macky Sall du toogaat quatre neuf neuf mois mais xam nga lu ñuy craindre ñun que loolu bu xasee ba am n'importe quel président bu ko neexee comme ni ma doon wax rek mun nga yeewu ne sama muus dafa soj dama ko war a yóbbu ci vétérinaire bi taluma affaire u état bi nañu reporter nañu yokkaat tuuti précédent dangereux boobu ñuy wax c'est ça qu'on évite moo tax même bu fekkee ne conseil constitutionnel dafa d'accord li loi bi def cour suprême rejeté sunu recours président Macky Sall pour respecter son engagement dafa war a démissionner ñu jox pouvoir bi président de l'Assemblée nationale ñu organiser élection dans les quatre vingt mais xam nga lii lu muy lu muy firndeel mooy conséquence dafa baax en politique. Ah. xam nga en 2016 quand le président a soumis euh, à l'appréciation euh, son histoire de réduction de son mandat. mu ne moom mu génn def adresse à la nation mu ne conseil constitutionnel daf ko daf daf ko def injonction nee na ko. bu ñu la mayee nga yokk baa nga wàññi précédent dangereux la. exactement tu obligé donc de fair un mandat de sept ans mais ñëpp a jóg ne ko conseil constitutionnel joxul décision joxewul décision. Ah, ami la joxe yow yaay apprécier bu la neexee nga topp ko baa nga mun bañ koo topp. Macky Sall mu ne moom dafay respecter la décision du conseil constitutionnel et donc il a fait son septennat. lan la laaj ñu ñëw non non non balaa sori. dafa ne woon day wàññi. dafa ne woon day def mandat quinquennat. déglu rek lan la laaj conseil est-ce que daf ko laaj naka laay def ba wàññi sama mandat wala daf ko laaj ndax mën naa wàññi sama mandat. daf leen laaj. ndax mun na tenir la promesse électorale qu'il a faite au laaj du premier tour de l'élection présidentielle. xam nga nag xam nga ñaari laaj nga war a laaj da ngay choisir yow jël nga engagement politique ne dinaa réduire sama mandat à cinq booy laaj conseil constitutionnel da nga ko naan jël naa engagement politique réduire sama mandat cinq naka laay def loolu mooy avis bu la nee boo ko buggee def da ngay organiser référendum wala da ngay démissionner wala nii ngay def mu jox la conseil mais boo ko nee est-ce que mën naa wàññi sama mandat conseil constitutionnel buy juger day xool par rapport à à l'état de la réglementation de la loi ce la est le le corpus juridique actuel est-ce que mën nga ko ci def mu ne la mënoo ko kon bul indi wax boobu. non non non si dinaa ko indi xam nga lu tax. la volonté de réduire le mandat n'était pas là. parce que aujourd'hui waaw ouais, d'accord ba tey rek. mais au moins. léegi aujourd'hui c'est la même chose. l'histoire vous rattrape c'est-à-dire. rattrape si l'histoire rattrape la classe politique aujourd'hui dañ ne conseil constitutionnel moom mooy le garant euh, du du du du processus donc conseil constitutionnel du la may nga proroger sa ce ce. ce non, mandat loolu c'est chacun a son point ku nekk da def sa analyse dëgg c'est ça le débat aujourd'hui on donne la possibilité au conseil constitutionnel de dire au de dicter euh, la loi au président de la République alors que bële passé dañ ko waxoon bu la neexee nga nga respecter sa promesse conseil constitutionnel warulaa dicter sa conduite. non non non dama lay expliquer li xew actuellement et là je suis d'accord ak yow aujourd'hui et moi je suis conséquent sur ça li ñuy ŋàññi ŋàññi justice problème yi ñu am yëpp aujourd'hui justice moo ñu ci mën a génn. cour suprême chambre administrative ak conseil constitutionnel ñoom heureusement d'ailleurs parce que am na dëkk yoo xam ne day am crise yoo xam ne yi doo ko mun a ligganti ci justice parce que c'est des crises de fait yoo xam ne yi balaa ngaa jot buub yi ba commencé ko régler du sotti fii am nañu chance que y a deux dossiers yu ñu war a traiter au niveau du conseil constitutionnel loolu c'est une chance maintenant conseil constitutionnel moom mooy xool ci lan lay sukkandiku pour jox décision décision boobu kenn mënatu ko nul ça c'est sur le plan juridique que légitimement que nit ñi bañ a d'accord ñu d'accord et tout ça c'est mais man sama crainte mooy que décision boobu bu fekkee dafa ne loi bi baax na dina indi crise loolu moo tax ma ne loolu même bu amee man damay inviter président Macky Sall mu démissionner ñu constater vacance bi du pouvoir ñu organiser élection yi dans les trois mois même bu ñu tolloo ci hypothèse boobu hypothèse pour hypothèse xam nga foofu du affaire u moo tax ma ne la la dialogue ne pas à l'ordre du jour parce que fi ñu jëm ñun suñu problème mooy dëkk bi ci lan lay dugg à partir de la décision du conseil constitutionnel ñun loolu moo ñu teree nelaw actuellement parce que ñun dañu am projet construire Sénégal sonn ci liggéey ko am ay projet yoo xam ne yaakaar na bu ñu ko defee Sénégal dina jubbantu kon ñun lépp lu mun a am dal ak stabilité pour Sénégal dugg ci situation boo xam ne dina ko permettre ñu commencer liggéey ñun loolu mooy sunu point dispositif électoral bi naka lañ koy changé le fichier naka lañ koy changé naka la ñuy defee affaire u parrainage bi ba nga xam ne ëllëg dootuñu am problème contestation donc moo tax ma ne la man maa ngi am yaakaar ah, franchement maa ngi am yaakaar que euh, ñun ñëpp d'accord nañu que président de la République le 3 avril dootul président la moom ci boppam d'accord moom nee na du présenté wu pour beneen mandat loolu tamit mun nañ ko ko nangu léegi munul tere waa loi bi demandé ni ñu ko demandé mu baax mu bon mun nañu wax ne yoonam nekku ci parce que dafa am séparation munul tere acte bi mu jël ñeneen ñi attaqué ko beneen juge war ci prononcé mais quelque que soit alpha bu fekkee décision bi ñuy jël dafay tax werante bi du jeex moom moo mun a dakkal werante bi donc bal bi dafay dellu si ci camp actuellement bal bi mu ngi ci camp wu conseil constitutionnel ak ak cour léegi ñooñ bu ñu paree bu fekkee ne nuyu la lu ñu li ñu décidé bal bi day dellu si ci loxo acte bi mu mun a jël mooy démissionner ñu organiser élection bu boobaa nag mun nañu toog waxtaanee naka la ñuy organiser moo tax ma ne la ce dialogue là moi j'ai aucun problème pour mais dialogue boo xam ne c'est sur fond de cette crise de légitimité loolu laa ne ku ci dugg it coow rek ngay indi du dem